jërëjëf euh, Khalifa salaamaaleykum euh, ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñuy seetaan fii ci 1L TV bon man maa ngi tudd Kumba euh, Seck bi may xale Kumba Seck lañ may doon woowe école mais maa ngi tudd Kumba Gawlo sama papa moo ma tuddalee Kumba Gawlo may xale la ma sama papa tuddalee Kumba Gawlo ndax askan bi ma bokk askanu Ngawlo la mu bëggoon ci ni ko doon waxee drapeau ngawlo wër àdduna mu ne nag ci sama tur lay jaar pour drapeau ngawlo mën a wër àdduna moo waral mu tuddee ma Kumba Gawlo mais am na ay yu bëri mooy la griotte peul ah maanaam gawlo pël bi ah, géwalu géwalu pël bi ah, donc loolu mooy euh, signifié Kumba Gawlo ndax xam nga gawlo moom alpulaar la mais bu géwal motax al alpulaar yi leg leg ni ñun gawlo yi ñoy seen ay géwal est-ce di nga wax pulaar a ah, déedéet min ko nanaani haydara min ko gawlo galli gawlo moy euh, tukuleur bo xamanteni ni day way mhm. bu kaste kaste la quoi manam day way day euh, dafa xam ciosan wax ciosan mhm. donc euh, lolu moy lolu moy particularité gawlo alpulaar yi dima ma woowe Coumba Gawlo moom ay teraanga rek laa ci am ay mbégte ay bànneex ak fierté fierté adduna yëpp naan Coumba Gawlo anecdote bi ma marqué mooy bi ñuy bind sama tur ah bu may def sama album international ak yenn sorti yi ñu koy bindu bëgg a def GAO ma ne non c'est GAW parce que W bi moo war fës <laughs> ci kaw voilà loolu mën naa ni bokk na ci anecdote sama passion pour la musique mën dono ni Nah, ndono la ndax dama ko don sama yaay don ko ci sama papa kon mën naa ni man dama judd pour way dama yor way ci sama deret la way nek avant muy nek passion sama wajur aussi nampal ma ci nampatal ma ci yar ma ci ma yaro ci way judd ci mag ci lol lepp nak mo ñew gëna may doole sama passion ci ñaar ñepp lu jóge mais mën ci papa ndax pa bi mom moma formé moma encadré bo waxé mune yow yaay suba Jackson <laughs> mënuma dab mère bi nag mënuma dab mère bi mënuma surclassé mère bi parce que man ba légui damay soxla mère bi ndax sumay way yenn ciossani yenn mam yi yenn ada yu yenn yu profond yi il faut mère bi ñew bu ñewul rek man damay xaw a momay wax kan moy kan kan moy mamam fan la soxé ko fan la ju joggé man dam koy xol damay am damay émerveillé wu dama koy ne mais noo xamee lii yëpp munu ma sama maam laa daan àndal. su daan dem di seeti ay géeram. kon moom dafa am chance man daaw ma ànd ak sama maam moom laa doon àndal. mais mère bi duma ko mës a